yal na ci yàlla ànd fekk sa affaire bi di wàññeeku ñu ne ñu gën ubbil ñu yeggal suñu saison te nag bu ñu fàtte état faale nañu de état faale nañu parce que bi ñuy reprendre suñu activité ci fin mars boobu ñu ngi yoon yenn dis bi ñu leen may ay lim ñii cent ñii deux cent ñii cinquante am na sax quarante lañ leen mayoon yenn dis bi mais loolu la ñu am droit dugal ñu ne làmb ji ñu ne ñu huis clos ñu ne non mënuñu ko réunion boobu Fallou yaa ngi fa woon ministère la amee woon ñu ne mënuñu huis ñu demal ba yaa ñu ne waaw huis ñu ne ba bu fekkee day am bu am ndàmpaay hmm? ñenn ñi seen pare nañu pour huis clos ñenn ñi ne mënuñ ko waaye ñun majorité bi la ñu topp ak intérêt lamb mooy mu dox ñu dem ba ci biir ci loolu discussion ñu ngi ut xaalis am nañ xaalis amuñ xaalis ñu ngi ci yéen far affaire bi wàcc ba am fu mu toll ñu ne bàyyi nañ ñu bëri ji ñu dem promoteurs yi dem ak lañ ak lañ ak lañ am ak lañ mën jaay bi ñu mais boobu ñu ne woy may nañ leen mais voilà mais ba ñu demee yàlla dimbali ñu ci dañoo jaay limité wuñ bi ku nekk la nga mën jaay nga ko état ah waaw ay la yowén comme ñàkk a jaay bi moo taxoon loolu ah comme jaay ngeen bi dimbal bi vraiment mënatul am promoteur nangu ko également dem donc je crois que loolu dafa am solo nit ñi xam ko maintenant lañ may doon kenn lañ lañ ñu may ñun moo tax ñooñu roy ñu parce que soo xam ñun ah waa làmb def nañ ko ñun aussi lu tax du gën ñu ko may moo tax stade demaat di feesa di feesul sax parce que fii ñun ñoo fi feesal stade stade bi fees na ñun ñoo ko fii def te combat yi ñëw am na yoo xam ne sax demoon nañ bay wax promoteur bi ne dañuy limité bi ngay jaay parce que ñi war a ñëw ci askan xajuñ fi te duñ nangu nga duy ko ba mu fees dell mel ni poti sardine duñ ko nangu wax nañ ko ay promoteur ñoom itam nangul nañ loolu kon nag nga xam ne ñun ñu ngi waxtaan suñu biir te ñun bëggu ñu ak yéen ñuy féewaloo lu yoon du yoon du dëgg dañ war a wax am benn kàddu wax ko mu leer ñun seen intérêt moo ñu fi taaj dans le respect rek scrupuleux de nos règlements am solo la nañu xam ni ñu communiquer fi mu nekk nii tey tey tey tembe suñu waxoon ne monsieur le ministre Matar Ba dañ la bëgg a rencontrer pour nangam nangam ak yooyu danañuy wax si mais am na nu ñu fay demee wax yenn yi mun nañu xeeb te jaroo ko fi te kilifa la tey wax kilifa gu mag gi aussi nañu dem journée de vaccination journée bi naka lay doon ñun duñ ci fayee duñ ci feree dara lañ fay feree sax CNG mun na ko fere mooy jënd ay gel teg fële ci bunt bi ak ay masque jox ko nit ñi amul problème on peut faire ça le reste état moo koy jël en charge euh, le ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr ñun am na suñu ministre de tutelle mooy monsieur Matar Ba wax naa ci ak moom déjà jàpp nañ ne bu ñu ko defoon mercredi dana baax ñun ñëpp parce que bu nu muy gën a sóoree suñu ubbite saison gën a sori te loolu arrangement li ñu mën ñu def ko amul amul amul njëg. lañ jëg ma ñuy doon CNG na ko def ci journée boobu gouverneur d'accord na ci sawar na ci lool nee na mën na ci taxaw mobilise gars yëpp équipe yi ñu di ay vaccin yu doy ak lu laa moom ñàkk comme loolu réew mi laaj nañu ànd ak ñoom ca loolu def ko ci yar ak teggin ci discipline man de su ma naxul suma bopp yaakaar naa te gëm naa ne bu nu ko defee ñu ñëw fi en masse ni ñu ñàkku buñ ci tegee ay fan buñ ñaanee état ak li ñu wax fii ne nangu nañ ko parce que loolu jógewul sax ci ci CNG de ci ñun yéen ñi ko proposé CNG ne balaa ngaa dugg nga wane sa carte na vaccination ne balaa ngaa dugg nga takk masque nga laal gel nga ñëw ñu dandante xam nga loolu déjà mooy que ñun ñëpp benn wax la ñuy wax yéen nangu ngeen loolu nangu ngeen koy def ci seen i journée nangu koy wax seen i écurie ak amateurs yëpp. mais je crois loolu loolu tax état bëgg bëggul leneen laaju leneen bu ñu nag di méngale suñu bopp ak ñeneen ñi naan ñee def na ñu amuñ sécurité ak yooyu yooyu am na démb ñu doon kii jongante am na fu am na problème am sécurité am na problème xeexoon nañu euh, affaire bi dagg na ñu demaat et cetera yooyu ñun bokkuñ ak ñooñu dara la ma wax moom suñ doole dafa weesu doole ñooñu ndaxte mbër mi bëri ji këram këram këram la déjà mobilisation commencé këram déjà këram rek déjà mbooloo nga dañ ko topp fii amul benn sport Sénégal même ci monde bi boo xam ne balaa ngay départ nit ñi dar la wala sa kër nit ñi yendu amu fen amu fen Sénégal am aussi da actualité gis nga keroog bi Sénégal di défilé fële gis nga reporter wax mu ne Sénégal ak ngoo waaye ñu naw lañ seen lamb bi ñuy def foofu lamb joo xam ne ni ñu ko bëggee waaye malheureusement kenn du ko def fii ndaxte ñoo rek ñoo koy def reporter bi waxul leneen loolu la wax ci làmb bi ñu défilé waxul ne am nañu natation wax ne làmb la fa làmb suñ làmb ji làmb ji nga xam ne moom moo yor réew comment comment Canal Plus merci dans le reportage yow suivre nga ko donc loolu bi nga ko waxee neex na ma trop mais ngeen xam aussi que ne la wax ñun bëgg nañ kaa weddi ndaxte président fédération France bu bu bu bu lutte xam nga ñëwoon na fi foog naa sa journée la ñëwoon sax seetaan ko fii dafa am invité nañ ko ñëw na seet gis na kontaan trop nee nañ liggéey en collaboration ak ñoom pour ñu défendre lutte sénégalaise bi muy lutte de plage pour que ñu mun ko yóbbu Jeux olympiques di nga wax ci. allez-y.

wane ne gis nga li ñu yor du caaxaan te nag fii nañ xam ne gis nga làmb ji ñi tax bi amut ñoo la gënal a bëgg mu am ñi ñi tax ñi ñi ko téye ne bu am ñoo la bëggoon gën a bëgg mu am. parce que xam nañ bu amee jour boobu kenn du déplacé wu déplacement yi ñuy téye rek rassemble du am fenn làmb ji lay doon te ñoom ñoo ñu dàq commenté làmb ji dañ koy suivre. xam nañ mbër yi xam nañ écurie yi xam nañ xam nañ lu baree baree bare ci làmb ji comme ñu c'est des sénégalais c'est pas grave ñu ne le sport de chez alors ci biir loolu ma ne mercredi mën nañ ko ñu def journée bi ay communication la rek communication Ousseyn mu dem ci plateau wala ba Gningue wala Fallou njaay wala sax def audio yooyu ñu ngi aw askan di làmb yëpp ak lu làmb mais àllarba huit heures ñu ñëw arène national pour ñu ñàkku ñu vacciné wu. mbas mi moo tax ñu tëj làmb ji nañ fi jëlee mbas mi nañ ànd nag ci solidarité. ci synergie ci engagement pour jëlee ko fi euh, ku mel ni euh, suma suma pël bi ñoom dañ pël yi dañ ma ko sédd suma jàmbu ndaw la bu wooyee suñu jarbaat suñu rakk ama wax ak moom ca loolu mu def communication baabu woo par exemple ëmma wala mis o ëmma Fallou o euh, Balla Gaye Mademba o comment s'appelle encore là Mademba o ah on le fou hein mais ku nekk euh, oo oh, ka muy woo ci mbër yi daf leen lii kër moo xew daf leen déclaration am na mbër mag nee na ma carrément ne président lépp loo xam ne yaa ngi ko ci communication naa ci jàpp ci ci VIP la bokk naa ci jàpp naa ci wax kooku ku naka oo oh, ak kone ak keneen mais ku nekk o oh, ka nga mën a woow ñu def ay audio paasante ko waaw waaw ma dinaa ci ñëw parce que jël naa note li ñuy wax nii yëpp moo tax ba ne bu ñu rafetalee mun nañ yegg fi ñu bëgg a dem bu ñu defee loolu nag ba pare ba nga xam ne jour ba ñàkkul nañ ba toog ci ngoon mais yéen ñu jox lañ kàddu gi nga def genre point de presse même ci biir affaire xam nga télé dina ñëw xam nga ñoom maaw ñoom duñ bàyyi dara ñii nii duñ bàyyi dara dañuy ñëw ci jour bi xool ni mu demee eh, jël burxaan fii eh, jël bun jël manga eh, jël ba jël jël jël leen ngeen réagir nga ne lii dañ koy def parce que ay Sénégal lañ mbas mi duñ nangu mu lor kenn waxuma la sax mbëri mais du lor bëgguñ mu lor benn Sénégalais daañ ko def nag comme moo tax ñu tëj suñu làmb bi dañ ko def pour que ñu ubbi suñu làmb ñun aussi ñu mën a continuer suñu activité c' est des communications suñ suñu jaree ñu def de presse ca ngoon sax ñu def ko bu jaree sax ñu làbbali ko ñu làbbali ko rek mais nañ jàpp ne dañuy def loolee buñ ci jógee nañ invité su ma jógee suñu paree nii damay oo monsieur le ministre oo aussi le gouverneur jël disposition yi bëgg nañ mu ñëw fekkee si ko ah waaw ginnaaw suba parce que dispositions yëpp pare na ñoo ministre ne ko mu ñëw mu présider vraiment suñu lancement boobu dana danañu neex lool bu ñëwee dañuy wax ak moom bu ñëwee mun naa fexe ba sax quand même ñu ne ko bëgg nañ sax waxtaan bu bëggee ñu ñëw fekk bureau vraiment waxtaan ak moom mu ñëw présider ko gouverneur ñëw également xam ne ñun ñii ay responsable lañu alors ah, léegi aussi ñu xam ne léeg-léeg ci mbir am loo xam ne kenn du ko bind te nag téléphone aussi c' est un moyen de communication officiel hein xam nga léeg-léeg euh, njàmbe oo téléphone xam nga njàmbe tey su bëggoon su la soxloon jël bëgg a jël convocation dawal oto fu nekk mu gaare fa dem réunion boobu ñuy convoqué xanaa weer la jëm mais ku buñ la ooyee wax la nga xam ne la voix officielle da nga ràññee ki la kan la ki la kan la ndaxte ma dem ba ñu ngi bële buy wax ak waa équipe kum ci oo téléphone ne ko ah attention entraînement yi suba kat la. 18 heures ñu arrêté parce que dañu war a def benn wax waxtaan mais comme ko def dafay ne waaw d'accord téléphone la du xaarum bind ko c'est la même chose nag ñun on en famille nañuy gérer loolu vraiment je crois que am na yu am na ay ay ay ay xalaat yu rafet yoo xam ne noté nañ ko dana bokk suñu defar suñu lettre wala suñu mémorandum di ko jox autorité yi nañ ko ci consigner parce que am na kii comment s'appelle encore Maaw am lu wax lu am solo am nañ un ak ñoom lii nii ñuy tënk nii buñ paree tey tey mun nañ ko daal jàlle TFM amul benn problème mën nañu ci commune bu baax a baax a baax a baax euh, maam na aussi euh, li wax am na solo ne balaa ngay dugg fii nga defar bon lii bu ñu xaar ba mu yegg foofu ñun nañ joxe le tong maanaam nañ nodd nañ nodd nañ joxe nodd bi parce que li xew fële ci kaw moo nar ñëw fii tey soo bitim réew am na place yoo xam ne doo fa dugg te vacciné woo bëri na moo tax ñenn ñi doon kaas naan woy par exemple en Italie France am na moo tax ñi naan la restriction des libertés ñun nag nañ joxe vraiment nañ joxe ton bi wane ne ñun suñu arène suñu activité buñ koy def ah waaw waaw na ci njëkk mooy loolu gis nga ñun nañ nekk avant-gardiste nit ñi nañ ñuy toppandoo ñun mais buñ toppandoo nañ ne làmb ji moo njëkk wax fii ne léegi désormais ku vacciné doo dugg seen seen manifestation ku ñàkkuwul doo bëre ku ñàkkuwul doo dugg ci arène bi ku aw takkul masque doo dugg ci arène bi ku laalul seen doo dugg ci arène bi te buñ toogee ci arène bi dañuy dand wante te sa ku nekk da nga suree sa morom su ma toogee jéey jéey toog fii ma ne ko jéey ah da ngaa kat man ma reculer wala ma reculer donc may sant ñëpp ci dal bi nit ñi dal parce que ba ngeen génnee ci gouverneur parce que gouverneur aussi. c'est l'État région bu nekk am na gouverneur mooy représenté ministre yëpp moo la fay représenté kon bu toogee wootee waxtaan ak nit ñi nit ànd ak maturité ak mët déglu ko dem daane mu ne lii ñu ne bon lii mu ne moo ay la yoon ko lii moo gën ñu ne kon nangul nañ la ko ña demoon li ngeen li ñu ngeen wax fi am loxo sax wax nañ ko gouverneur foofu ña ne ko waaye waa nangul nañ ko waaye nag bëgg nañ ngeen gëstuñu ci wàllu ndimbal ci wàllu aide état ndimbal état yaa foo woon wax ngeen ko journée boobu yëpp ba bi ngeen dugg saal maa ngi wax ak moom maa ngi wax ak gouverneur c'est pour dire que ñun dañuy accompagner promoteur bi accompagner manager bi accompagner euh, mbër mi accompagner amateur yi ak entraîneur yi parce que su dawul loolu duñ ci dugg parce que problème bi am CNG mënoon a dégager suñu su ma yoon new ci ndax du ma régler sécurité sécurité aussi compétence transférée mais CNG def loolu dafa bëgg làmbam dox ndax dañoo dénk loo xam dañu ko war a doxal kon lépp lu ñu ci war a def ak lu ci mën daañ ko def cuun ñu gërëm ko sant ko cuun jàmbaar la ndaxte moo nekk suñu trait d'union moo nekk suñu buum diggante ñun ak sécurité ñu gërëm sant commissaire central lu tax parce que mu ñu jàppale moo tax ma ne bu kenn wax ne sécurité amul sécurité am na yéen mi ngi duggee ci arène bi gis ngeen fi oto police yi ñu taxaw ñu toog ñu ngi ci biir te depuis avant ñu arrêté bi léegi noonu la chaque jour ñu ngi fi ndax ñu ngi am fii seen euh, am nañu cantonnement bu nekk fii parce que ba ñu def assise laajoon nañ ne dina am police bu ñëw fii mais waaw police bu am poste de police eh, mais locaux yi moom la ñoon defaraat pare na ñëw nañu léegi tous les jours ñu ngi fi loolu kan moo ko am làmb jee ko am kan ma ko laajoon làmb ji kon nag état bu ñu faale woon ñu jox loolu te lii sécurité la mais dafa am lu muy bañ ci ni réew mi tëddee ak mbas mi fu mu toll rek mais ñun nañu béy suñu waar nañ béy suñu waar ñun waa làmb nañ béy suñu waar lu mu tekki mooy ñu mobiliser wu bu bu àllarba incha allah huit heures bu ñu fi kenn jiitu ñu ñëw ñàkku ak suñuy supporters suñu fan sa club ak suñuy mbër et cetera et cetera et cetera loolu bu ñu ko defee vraiment jàmm rek ay am. maaw yaa fi nekk nag yow aussi comme partenaire lañ am na yoo xam ne il foog ngeen def ko ah faut ngeen seet yi vraiment ñi war a def déclaration ñu def déclaration ah. mbëri mag yi am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne d'abord euh, xam nga relation dafa am aussi am na ñoo xam ne baabu mun na ci ñoom dara ñi mbay jàll ñi euh, Fallou Ndiaye ñi Malick Ñing ñi ki ma naka Silla encore Alioune Silla ñi Burxaan mais am nañ ñun aussi ñu fexe ñi comment s'appelle Babou ella baaxum ah am nga sa poulain bu nekk ci biir affaire bi euh, léegi ñi ñet ñi des njàmmi na leen woow njàmmi dana woow mbëri yu mag yi ne leen lii am na ñëw leen mobiliser leen ñëw leen CNG moo leen woo ci loolu ngeen ñëw jàpp ci mais Roger bu leen toog communiquer leen ci yéen ñi fi nekk surtout parce que li ñu wax fii yëpp ku ci nekk mën na ci communiquer waaw. waaw. waaw. tout à fait. jege na mais ñi ci mais même ñi ci des nañ ci communiquer tey tey tey Bassirou baabu Babou. yow yaa ma gën a jege war nga cee wax su may su may jóg fii léegi daa oo Gaston naa oo Papa du Fall euh, Fallou Ndiaye mu ngi fi toog. bu la ci kenn jiitu parce que yaa fekkee réunion si ñu waroon dëgg d'abord jamaïcain woolee seen i mbër Parde Sila woolee seen mbër yeeg seen écurie Bourkhane non ñi fi nekk ah comment oui hmm. waaw hmm. jël dañ leen jël partenariat par exemple. Euh, exclusivité. allez-y waaw. Mm, mm. waaye donc ngeen oo leen vite fait ñu def ko avant avant avant 17h nit ñi xam ne vraiment annonce bi dem na c'est très important Mao il faut voir comment tu vas t'organiser avec une équipe vraiment nga jël gars yi le brocoli kan moom waaw non non non na guy gi waaw ay hmm. par exemple par exemple waaye donc Bourkhane dégg ngeen ko Mademba vous avez entendu hein Fallou oui Allez-y pour le numéro. Allez-y pour le hmm. numéro. Oui. Allez-y pour le numéro. Allez-y pour le numéro. 77, jamais tu prends. 042 60 60. 77 042 60 60 numéro WhatsApp. ok ku am image ku am def benn audio rek nga envoyé ko ci kii boobu voilà. bëggoon bu ah, numéro bi. ku ko fàtte nga envoyé ko directement Ndiamé ku ko fàtte nga envoyé ko ko 77 042 60 60 Mbaye Diallo Mbaye Diallo il faut nga wax ak sa gars yi ñoom oo leen ñoom ñu Cheikh Ndiaye oui oui oui waaw oui maximum 30 secondes d'accord waaw 77 60 60 waaw vidéo 30 secondes rek waaw def appel bi waaw 60 60 waaw y a pas de souci oui oui waaw maanaam yéen su ngeen ooyee mbëri les champions là su ngeen leen wooyee Babou na wax ne man la Basirou Babou président manager yi maa ngi woo ñëpp ñu ñëw àllarba ci huit heures arène pour ñu ñàkku ñu mobiliser pour jëlee fi mbas mi loolu doy na loolu doy na loolu rek doy na mercredi huit comment. ah ba tey bon bon ki mu may ne mu may dee ne pardon mu ne ci message ba mu wax ne ñu jëlee fi mbas mi. pour mën a bëriwaat pour mën ubbi arène bi mën a delloo bëri oui oui quand même tout à fait waaw alors ku euh, ñëw kuy ñëw na nga indaale sa carte parce que bu la buñ la ñàkk da nga jox carte bi ñu bind ko ci ah ñu di sa tur ak yooyu sa filiation yooyu jox la ko. Alune comment waaw waaw. waaw bon léegi bu bu bu ko defee mercredi buñ buñ paree ba xam ni mu demee danañ oote ñu évaluer évaluer ko après dugg ci deuxième phase bi ci mbiru ubbite bi incha allah lu ci nekk dañ leen woo njàmbe na woo ñii wala mu def benn audio balancé la ko seen groupe kon nag kontaan nañ ci ñëw bi kontaan nañ ci teewaay bi